assalamu asalaamaaleykum gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Euh, wax deug yalla di di di ñaanal Sénégal yëpp waye di ñaanal suñu commune nga xamni moy commune Gueule Tapée Fass Colobane si nouvelle an bi ñu jëm yalla defal ñu ci sutura xéewal ak jamm ndax Covid bi ñu génn bi ñu nekk ni metti na si population yi ba kenn ku nekk gis na si sa bopp ndax ñàkk nañ si lu bëree bëri bëri di wax ni euh, nouvelle an bi ñu jëm ñu ngi souhaité mu nekk nouvelle an bu bu jekk bu rafet bu baax ci population yi gannaaw bañ ko euh, joxe monsieur le maire Ousmane Doy mu séddale ko commune Gueule Tapée Fass Colobane ñu koy jox population yi yëpp di wax ni nouvel an bi yàlla na ci yàlla defal ba nga xam 2021 bi ñu jëm dina nekk atum naataange nekk atum jàmm nekk atum xéewal pour chrétiens yi pour musulman yi ak kep ko xamni yaangi tekkou yaangi nek ci yoonu siratul mustahim di wax ni taxaway biñu taxaw nak euh taxawayu premier adjoint au maire la Babacar Diop di wax ni lepp luñuy def rek dinañ ko def ci aduna mu nek lo xamni lo rafet la te dina bax ci population yi. di wax ni nak di souhaiter sénégalais yépp bonne et heureuse année mu nek euh, année bu am jàmm année bu am sutura. année bu am xéewal di wax ni suñu mbokku Dak naa yi nag ñu ngi leen di defal mention spéciale di leen ko souhaiter ñoom it ndax boobu ba léegi amul fenn fu ñu duggul ci réew mi wax ak kilifa réew mi ngir feeñal li nga xam ni mooy dox ci réew mi ak li doxul di sant ñëpp di gërëm ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim